Malikum mbokk sénégalais nek fi ci adina bi yéen ñi déglu ci radio défaral suñu bop mbokk yi tay dañu ñëw indi benen question bo xamné wax dëgg yalla bés yi yëpp nit ñi ngi ci poser question muy mirum sanatoria boobu ñuy wax di Kangourou te dara leeru ci leeragu ci eh, ñi nga xam ne dañ leen ooye demander d'asile dañ dëkk ci camp yi dugg ci géej gi ñëw itali te wax la xaw fee sakkan macha allah ñooñu suñ doon def sanatoria nan lañ ban taxawaay lañ ci am dañ ci mën a am ak tamit suñ doon def sanatoria ndax ñoom di dañ ci bokk wala déet. Euh, question bi wax dëgg yàlla jot naa ko euh, plusieurs fois nit ñi laaj nañ ma ci ndaxte nag mu nekk nag ay <clears throat> ay hypothèse rek lañ ci mën a tontu parce que xam ngeen ne loolu ñuy wax sanatoria bi dara leeragu ci dara leeragu ci ndaxte ñoom comme ni ma ko waxee bërki démb ay député ñoo proposé loolu ñu ngi toll ci étape bi nga xam ne lañ koy caytoo balaa ñu koy mën euh, yóbbu ci biir assemblée bi bañ def ko loi wax dëgg yàlla mën na nekk lu bañ a gaaw waaye nag lii nag suma xelaat dong la yàlla rek a xam xalaa di wax yéene bi mooy pour ñun yéene la dong la rek mooy yal yàlla def mu gaaw génn question bi donc mbokk yi mooy ñi nga xam fait dañ fee jaar ci ci yi am nañ permis de séjour pour six mois ñooñu su sanatorium bi génnee nan nous def ndax dañ ci bokk wala mu question bu xaw doy mbokk yi rek laay tontu ne sanatoria sayo amé képp ku fi nekk ci dëkk bi permis de séjour définitif euh, li nga sanatoria bi moom la ñuy war nga a demande d'asile wala nga bañ koo nekk mais nga nekk ci réew mi rek séjour war nga a suma la

ñëpp xam nañ ne euh, euh, demandeur d'asile yi li ci ëpp ñoom lañ ñoom donc am na li ci gën doy waar sax moo di ne ñoom ñu ci bëri permis de séjour provisoire lañ am am na sax ñu ci am carte d'identité ak codice fiscal di liggéey teg ci di am ay busta paga ba am kudd ay kudd te amaguñ permis de séjour définitif muy mbir mu doy waar mus naa ko fi wax ci sumay audio ne wax dëgg yàlla réew mi képp ku fi nekk di liggéey am contrat di ñu lay dagg ci sa bulletin de paie li gënoon rafet mooy ñu jox la permis de séjour même su fekkoon ne sax asile nga doon laajte mais su yàlla def ngay liggéey pour ndaxte euh, sooy liggéey rek te ñi ciy liggéey ci xale yooyu bari nañ moo di ne Italie soxna la leen ñooñu dañ leen waroon oo rek teg leen ci yoon teg leen ci jox leen permis de séjour waaye loolu nag suma xalaatu bopp suma opinion personnelle la wax dëgg yàlla euh, réew mi doxewul noonu parce que ñoom dañ ne ku demander asile am liggéey peut-être baax na waaye nag du permis de séjour pour travail lañ lay jox ndaxte yow laajte yoo ñaanoon permis de séjour pour travail yaa ngi ñaanoon permis de séjour pour

kon nag mbokk yi ma gëm am yaakaar rek ne sanatoria ci bokkoon su génnoon euh, ñooñu nekk ci camp yi am naa yaakaar ne dinañ leen ci cëral lu bëri ndaxte ñoom ñu ngi ci réew mi ba pare te waa réew mi xam nañ ne ñu ngi ci réew mi ndaxte ñii jox nañ leen euh, permis de séjour provisoire bu six mois ñii jox nañ leen carte d'identité ak codice fiscale am na ci ñeneen ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla procédure bi ba dem cassation jeexal nañ ci ñooñu foo daanee sax seen affaire mooy <laughs> gën a gaaw parce que ñoom jàppuñ ci dara mais xam nañ ne ñu ci réew mi. foo naa ne tamit ñi nga xam ne yore nañ permis de séjour six mois te seen séjour jeexagul am naa yaakaar ne ñooñu tamit wax dëgg yàlla pour nguur gi laqat ci seeni mbir euh, dina xaw a yomb. wala ci mbir moomu ci quota bi nga xam ne nguur bi dina ko tëral mën na am tamit ñu jox leen ci astir pour que ñu mën am permis de séjour pour travail xanaa rek damay dellu si wax en général comme ku ko yi mujj te mu mel ni wax dëgg yàlla ñii di dugal loi bi na critère yi 2012 mu lañ bëgg a dugalaat moo di ne képp koo xam euh, ci bok il faut nga am liñu wax employeur muy datore di lavoro ci italien ci demandeur d'asile yoy wax dëgg yalla comme ni ma ko waxee am nañu ñu ñu ci liggéey di liggéey déjà euh ak contrat kon nak ñooñu demande euh, employeur dina len yomb parce que kep ko fa xam ne yaa liggéey wax dëgg euh, am employeur

ñooñu liggéeyuñu au noir donc pour ñooñu su boobaa dina yomb ndaxte wax dëgg yàlla soo yore kudd yoree bulletin de pay kenn dootu la laaj nga fay forfait boobu ñuy wax forfait contributi nga xam ne 2012 six mois lañ laajoon xanaa rek euh, mu des preuve demandeur d'asile tamit wax dëgg yàlla preuve dina yomb ci ñoom preuve buy wone ne yaa ngi woon ci dëkk bi au moins un an ne eh, ku dugg ci dëkk bi ba nekk ci camp yi su fekkee ne sa un an na fi eh, am na yaakaar ne eh, këyit yi wane ne un ñu ngi fi ñoom demandeur asile yooyu dinañ ko yore mais tamit nguur gi ñàkkul ne dinañ yore tamit kayit yooyu mooy d'un an wax dëgg yàlla mën nañ ko ci demandeur d'asile yi mais comme ni ngeen ko xamee demandeur d'asile yi wax dëgg yàlla ci at mi ñu paase génn ni euh, bëreetul waaye ñàkkul ne am na ci mbokk yi ñoo xam ne biñ duggee ci réew mi motul un an wala biñ demandé demande biñ demandé asile ba léegi motul un an ba jox nañ leen six mois bi ñooñu ñàkkul ne ci loi bi ñiy tegal loi bi mën na am tamit ñu comme ni mu ko waxee ñu am luñ cëral ñooñu nga xam ne preuve un an bi su fekkee ne yaakaar nañ ne motuluñ ko duñ leen ko tegal xanaa rek mbokk yi di wax ne euh, troisième euh, mbir euh, waa loolu mooy donc mooy contrat de travail muy contribution forfaitaire ak preuve ñoo ñu fa naa ci demandeur d'asile yi war na nekk lu yomb mu am nag beneen question boo xam ne wax dëgg yàlla dafa mel ni coono la ci ñi fi dugg sans muy passeport parce que nag mbokk yi xam ngeen ne kon euh, permis de séjour pour travail ku koy ñaan dañ lay laaj sa paasi réew xam naa ne problème bu bari am na ci suñ mbokk yi ñu dugg ci gaal yi yegsi ci Italie ñu ci bari yor yoruñ passeport te parfois suñ leen yónnee questura dañ leen di laaj seen passeport pour mën koo téye wala pour mën leen jox kayit pour mën leen jox permis de séjour pour travail euh, mu nekk nag difficulté yu bëri euh, xam naa ne képp koo xam ne am nga ci passeport yàlla def tur bi nga joxe fii ci Italie ak date de naissance bi nga joxe fii ci Italie mu méngoog passeport ba nga amoon Sénégal fan naa ne jot tamit nga dem toppatoo ko beneen problème bi ci nekk mooy ñi nga xam ne dañoo dugg ci réew mi joxe beneen tur bu bokkul ak tur bañ amee njëkkoon a am passeport Sénégal wala carte d'identité joxe beneen date naissance boo xam ne dañ dugaloon Sénégal euh, ak bañ dugaloon Sénégal bokkul ñooñu xam ngeen ne wax dëgg yàlla difficulté bu mag la xanaa su fekkee ne jaar nañ commission wala demaguñ wala euh, wala yegg commission xanaa rek ñu ñaan leen xanaa liñ ci jéem fi mu nekk nii moy yema fexé une commission wax changer euh, dem demander euh, euh, commission ñu jox de naissance yi nga la Sénégal li une... suma la amna peut-être ku fa jaar yoyu wax peut-être problème bobu, dina régler wu nak li ci problème une... amna ci ay sénégalais lañ biñ wala Guinée tu te wër na yàlla dëgg yàlla nekkuñ ko ba amna ci ñoo xam joxon nañ leen ci këyit waye su ñuy dem di renouveler dañ leen di wax dem leen seen réew ñu jox leen passeport te ku wax ne malien nga te dem taxaw Mali wala ku wax ne gina bisao nga te mosoo taxaw gina bisao xam nga pour am passeport yi dëkk yooyu day jafe ñoñu tamit seen situation wax dëgg yalla gisuma awma ci xam-xam ban solution moo ci mun a nekk ndax données yi ñu joxe nationalité bi ñu wax ne moom lañ joxe fii lool li nga xam ne moom lañ nekk réellement kon nag kooku tamit beneen problème la xam naa ne ñooñu ñu daal wax dëgg yàlla il faut ñu mën a jël seen matuwaay parce que mënoo ñëw ne Italie Guinée Bissau la yeewu dem indi leen passeport senegal ne Ablaye ne ne ne Daouda nga tudd ñëw yeewu indi leen passeport comme du waa wax dëgg yàlla day xaw a doy waar kon nag liñ ci e, digal rek mbokk yi Sénégal wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ne trafic yi passeport ak trafic yi ay e, e, kayitu juddu dafa am di leen ci diggal rek gën ndaxte wax dëgg yàlla passeport bu jaarul yoon ku ko jox fii autorité waa Italie yàlla may na leen ñu xarañ ba nga xam ne dinañ mën contrôler ndax bu baax la wala bu baaxul <coughs> te suñ gisee ne baaxul wax dëgg yàlla euh, dañ leen di daan beneen bi ay tamit ñëpp xam nañ légalisation ambassade marché parallèle ay Sénégal mbokk yi wax dëgg lu parce que ay kayit yoo xam ne Euh, war ngeen cee jël seen matuwaay éviter ko ndaxte su duggee ci réew mi suñ ko caytoo gis non seulement mën nañ la ci daan daan waaye nag soo watul lu nuroog këyit dootoo ko mën a am fii ci dëkk bi mbokk yi donc lii laa leen indiloon yéen suñ mbokk demandeur d'asile yooyu li leen di ñaan mooy euh, dara leeragul bu ci kenn nax kenn bu ci kenn jaaxle képp koo xam ne yaakaar nga kayit yi war war nga koo am surtout lu nekk ci passeport war nga koo mën a am dëgg yàlla danga ciy jóg toppatoo ko léegi ndaxte sanatoria boobu ñuy wax kenn xamul kañ lay mot xanaa rek di am yéene ak di ñaan yàlla ko yàlla gaawatal te gouvernement bi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ñaanal leen ñu gën fee yàgg ndaxte wax dëgg yàlla ñoom de ñoo xaw a tane ñi nga xam ne ñoo fi njëkkoon nekk. kon nag mbokk yi lii leeral biñ indi ci mbirum demandeur d'asile su yàlla defee sanatoria am nanan ban taxawaay lañ ci mën a am di leen wax nag lii ma wax ni ay hypothèse dong la euh, euh, dara génnagul tamit dara leeragul ci sanatoria boobu ndax dina am wala du am waaye nag comme niñ ko waxee rajo defaral suñu bopp day waxtaan ak yéen di ci caytu di indi waxtaan problème yi nga xam ne moom lañuy ñuy fii ci dëkk bi surtout nag ci problème yi këyit kon nag mbokk yi lii lañ indiloon seen xarit Baye Diouf ci Milan ba beneen yoon jërëjëf